le 31 décembre lay doon fii ci arène nationale diggante Boy Diop mi nga xamante ne bii déggagul muñal ak caatu ngewel mi nga xam ne ku taxaw ci yoonam mu fel la jàll ndaw combat bu rëy le 31 décembre ak Ndiaye production fii ci arène nationale cay Ndiaye production. ay ca mbokk yi Medina la ñu nekk Diène Kaïré moo war a bëre tey ak ki nga xamante ne bii moom mooy Zarko diggante Grand Yoff la ak Medina Ibulaay production moo tëgg boobule combat Diène mi ngi ci biir. mi ngi waaj a génn dañuy doxantu xool xoolal leen jéen ni mu fas yéenee génne xarfa xurfa yi muy def waa Medina naka lañ koy yebee naka lañ koy ñaanale naka lay waaje naka lay demee fële nga xamante ne bii moom mooy arène nationale ay ca dañuy jàpp ay ca kaay kaay mi ngi noonu borom jurbel la ngi nii démb dafa amoon combat ci làmb ji xeeru jurbel wala xeeru faas waaw loo wax rek xeeru wala faas wala xeeru sumbajum waa ñu ngi lay delloo ziar mais mais noo leen waajale mbër waaw comme ni ñuy waajee rek ñun ñoo àndoon di entraîné am nañ si moom yaakaar bu baax di ko ñaanal suñu borom defal ko ndam rek billaahi mais ki ngeen di bëreel jiitu leen ci lam waaw loolu dara mais ëpp jéen moo ko ëpp expérience si làmb moo moo jiitu jéen ci lam ma ne la jéen moo ko ëpp expérience làmb waaw tey ban jéen kayre la ñu waaw jéen kayre comme biñu daan gis rek jéen mbëri yi mu bëreel ñoo gën a dansé ko ku daan koña daan boy bowal hmm. xam nga ak yeneen champion daan nii la coins daan moranda hmm. sawaay du la jaaxal waaw ayca ayca Mansour nañu dem ci xale yu jigéen ñi Mansour nañu dem ayca nañu dem ci xale jigéen ñi ñii dégg naa ñii dégg naa jéen rek la ñuy topp ayca xale bu jigéen bi maa ngi lay ziar mbaa yaa ngi si jàmm mais yaa ngi def yaa ngi def sa beere yaa def sa beere vert bu rafet macha allah tey noo leen waajale jéen <laughs> ah waajale comme d'habitude ni ñu ko daan waajalee xam nga jéen moom xam nga rek yar teggin tey daal moom rek lañ ko xamee moom comme niñ ko daan defee rek yox la bëre daan ñibbi rek incha allah dem jëli ndam dem jëli ndam mais ki ngeen di bëreel der la Zarko waaw loolu xam nañ ko Zarko der la mais Diène tamit mooy loolu de Diène tamit bañkat la Zarko moom der la loo leen di wax Diène ah mu daal rek daal tey waaw lamb moom lamb rek ba am li nga bëgg solo ayca jaajëf ayca Mansour ñu dem ñu doxal dugg ci biir gaay dem kër mbër ay Aïcha Mansour per Kayre ngi noonu ndeysaan mi ngi noonu ubbi na oto ba am na lu muy xool ci biir xëcc na benn mbuus bu noir ndeysaan mooy papa ci ki nga xamante ne bii mooy jën Kayre Père Kayre saan bu nekk bëree na ko ci làmb ndaanaan yu bëri bëree na ak ñoom bokk na ci mbër yi nga xamante ne bii ñoo ëpp victoire ci làmb ji moom Père Kayre mi ngi noonu am na lu muy génnee ci biir oto bi génnee na ko tëjaat na oto ba mag a sol benn. benn pile bu pile bu bulan takk benn morceau bu verte ndeysaan Mansour per Kayre nga noona ma ngay duggaat ca biir ndeysaan njureel dafa tiis macha allah mooy waajal xale bi moo koy takkal ngemb moo koy jiital moo koy yóbbu arène nationale bu ñu demee ba ñëpp génn géew bi moo ko naan tàllalal say loxo ma ñaanal la ndeysaan Père Kayre nga noona yaa ngi koy gis mbokk yi peera nga noonu taxaw am na ku muy waxal dafa mel ni yaay dafa mel ni yaayi jénd ndeysaan oho ñoom ñaar dugg nañ ci biir néeg ba paca Mansour dafa mel ni jéen mu ngi takk ngemb ci kanam tuuti dans quelques instants danañ ko gis mu génn ndeysaan dongali jubale fële nga xamante ne bi moo di arène nationale digganteem ak Zarko di leen fàttali tey la dimanche le 17 décembre 2023 Iboulaye production moo tëgg combat bu neex boobu. elage bu jéere gi noonu mbokk yi ndeysaan elage a ngi noonu di wis xorom ma ngay wis oto yo xorom cey elage Mansour yàgg naa la ko wax diggante xorom ak làmb ànd bu yàgg la ndeysaan suñu naataango yaa nga noonu ñoom tamit di def seen liggéey elage ngi noonu sol benn laafo bu noir ma ngay wis xorom xorom su nooy nepp la nag xanaa mooy na saf-sap cey bu jéen leket la yor ak xorom ay ca Mansour ñi ngi noonu di génne li nga xamante ne bi mooy sarax yi xar fa xur fa yaa ngi noonu di génn ñu ngi koy dugal ci oto bu rouge bële la dugal bagage si Mansour ci oto bu rouge bële ndeysaan maa ngay gis ñuy saraxe mburu ndeysaan ña ngay saraxe mburu cey làmb ña ngay saraxe ay mbuusi soow mbuusi soow yaa nga noonu ca pan ba ndeysaan làmb ki bagaasam cey onjom njom fa felalum per kayre ngi noonu du ñëwaat Mansour ña ngay génne débat déb ya débat yaa ngay génn peera ngi noonu ci ban oto lañ koy dugal oto bu weex bi wala bu xonq bi ca oto bu xonq bala jëm cay lamb cay lamb Mansour peere ngi noonu da koy ubbil maal bi mu duwal ko ci biir seen naa mbañik ca biir léegi mbañik kayre Mansour mbañik kayre ngi noonu rakk la ci jéen ndeysaan mbokk ndey koy jur hélas bu jéen nga ca gannaaw yor benn layo ñu def ci tàngal ak mbiskit xale yi la koy sarax cay làmb façon sarax bu ne lan lay génne loo danañ la génneloo fruit waaw banana ak pomme clémentine orange marocain ndeysaan ñu def ko ci benn layo boole kook suukar ak mbiskit ak tàndarma ndeysaan ña nga koy sarax xeleya ya élage bu jéen a ngay tibb di joxe cey élage Mansour seen naa ay yuppi xam nga tàngal yuppi tàngal yuppee ngi noonu tàngal bant Moustapha yor tàngal yuppi bi cey Moustapha mooy saraxa tàngal yuppi waaye Mansour ba léegi xarfa xurufa yaa ngi génn déeba déeb yaa ngi génn ndeysaan ndeysaan sëriñ daa mel ni jën kayre yére bii la soloon keroog open press ba ndeysaan sëriñ a ngi noonu moo sol yére rabal bi fruit yaa nga noona poma nga noona sama xarit la pom moom pom mii laa <laughs> ilaaha illallah seex ndeysaan se ndeysaan seex kaa ngi noonu cey lamb yuppi lay saraxe ak mante fraise ak tàngal Balla Gaye ñetti tàngal la boole mélangé ko tàngal yuppi tàngal mante fraise ak tàngal Balla Gaye ndeysaan pom yaa nga noona ak orange ya cey lamb lamb doy waar Mansour mosuma bëre man man man micro bi rek laay bëreel Mansour ah mos ngaa bëre ñaata combat nga def. six combat. Mansour est-ce que def nga six combat. bëre koñ am quatre victoire. lamb koñ. waaw marche yow boo góorgóorlu woon tuuti mbër ngay doon. barki si noonu laa mënee bëre nag. am nga taay bi. mën naa bëre de mbay taxawaay barki Serigne Bamba. doole ji rek a des te boo ko woowee mu ñëw. billaay wallaay yaramu xale élastique la. xale laa mbay xale bu ndaw laa. sama njool mu ndaw bi. kaay dogaale ma. kaay dogaale ma yóbbu. ndeysaan ngi noonu. ndeysaan buntu kër jën kayre la ñu nekk. yaay jën kay ree ngi noonu taxaw ndeysaan borom kab bu zone bi nag moo ñu ko xaw a gêné su buuse woon tuuti rek ñu jàkkaarloog yaay booy yaay booy ngi noonu mu ngi génn Mansour zumal ci moom zumal ci yaay booy mi ngi noonu mi ngi wax booy joxoñ saan yaay champion ngi noonu ma ngay delluwaat ca biir kër ga saan njureel dafa metti sa doom war a taq ngemb wara a ji xam naa buñ ko jege woon dinañ ko laaj ñaari kàddu mu wax ñu mbër buy bëree lan lay yëg ndeysaan macha allah. ay ca Mansour jën génn na génn nga noona ndeysaan yaay jee jiitu ci kanam ndeysaan mbokk yi njureel dafa foor yaay jaa nga noona Mansour zumal ma ci maire bi ndeysaan maire bee kaalawu noonu ndeysaan El Hadj bu Diène nekk noonu ci kanam yor genn ginaar gu weex ci loxo càmmoñ bi. ndeysaan père Kayre nga noona sol benn pil Adidas bu blanc jéen nga noona sa gannaaw Mansour Mansour yaa ngay gis jéen ma nga sol benn xaftaan bu kaki ndeysaan rango ay sengoor cey champion jéen Kayre nga noona maa ngay seen Baba Jaw ma nga ca bunt ba di organiser ndeysaan jéen a ngi noona di ñëw Mansour jéen a ngi ñëw jéen a ngi dégagé ji di ñëw ma ngay def ay déplacement def nay démonstration dóor na tànk bi ci suuf bee jëndu kooba la yor ndeysaan Mansour Mansour jéen a gi noonu ho ho adversaire u Zarko ngi noonu ma ngay def li nga xamante ne bii mooy ay débat débam ndeysaan dimanche 17 décembre 2023 ndeysaan mbokk yi oh sànni nan pigeon ba ndeysaan sànni waat nan ko ndeysaan am na luñ koy sotti ñu ko koy sotti saafara am na saafara bu muy naan naan na ca ñaari yoon ndeysaan sotte koo na ko sotte koo na meew ma ndeysaan mbokk yi ma ngay sotte koo beneen saafara cey lamb Mansour cey lamb Mansour nee naa la bisu tey bii bis la ba nga xamante ne bii histoire da koy bind. jën kayre gi noonu ndeysaan ñu xale bu mën a bëri kaar macha allah ndeysaan na loxo ba def na siñu allahu ndeysaan jën kayre def ay combat yi nga xamante ne bii ay combat yu neex la def ay combat yi nga xamante ndeysaan gis nga jën dóor na door na gauche droite def demi flexion wàccaat ndeysaan ndeysaan ho ho est-ce que fa mu jaar ak jibi mbote fa lay jaar ki nga xamante ne bii mooy Zarko est-ce que fa mu jaar ak Youssou bu Balla gay falay lay jaar ki nga xamante ne bii mooy Zarko est-ce que fa mu jaar ak Koña est-ce que fa mu jaar ak Malaw Seras ndeysaan est-ce que fa mu jaar ak Marley ndeysaan est-ce que fa mu jaar ak Modou fala la nar a jaar ki nga xamante ne bii mooy kuwent mooy mooy mooy Zarko loolu laaj bu ñuy samp la ci kanam tuuti lay leer bu ñu demee arène nationale ndeysaan Mansour yaa jaa ngi koy ñaanal Mansour zumal loolu yaa jët nee na ko tàllal loxo yi ndeysaan jurel dafa foor ndeysaan nee na nee naa la ñaanu yaay ci doom dafa foor ndeysaan nee na ko demal jëli ndam li ñëwaat ndeysaan yaa yaay ngi koy ñaanal ndeysaan li daw na yaram Mansour Mansour yaram daw na ndeysaan ma nga noona jën kayre yaay ja ñaanal na ko mu diwoo ndeysaan nee na xajal leen ma ma xool oto bi ndeysaan xàll nan jën a ngi noonu xoolal taxawaay ba ndeysaan papa jang koy xool ma ngi koy xool xoolu njureel yëkkati na loxo ba rendi na cey Mansour jën cey jéen am na ko muy waxal am na ko muy waxal ndeysaan mbañi kayre yéeg ci kaw oto bi noonu sol blouson j'adore bi Baba Jaw a nekk noonu ndeysaan ho ho jéen dugg na jéen dugg na Baba Jaw dugg na Baba Jaw ay dawal Baba Jaw ay dawal oto bi ci kaw oto bi lay Jaw day yéeg ci kaw oto bi ci kaw oto jàpp nu ci buum bi bilaay walaay ndeysaan Baba Jaw ku yàgg a sonn ci jéen bilaay walaay ndeysaan ndeysaan ho ho jën dugg na jën dugg na ci biir papa ji pa père Kayre ci oto bu xonq bee la dugg. ndeysaan père Kayre ci oto bu rouge bi la dugg. Oh, ndeysaan oto boobu moo def débat déb yi. bay lii dafa doy waar. non lii dafa daw yaram. bay lamb dafa neex. cey cey lam man lamb rek lay topp. ñun lamb rek la ñuy topp. topp ma keneen. barki yonent. comme ça leneen nga ko téye. maa la ko wax ku am leneen téyel. man maa lam lamb rek lay topp. sama njool mu ndaw mi lamb rek la ñuy topp. lamb da lay def ku ma bëgg dama na la bàyyi ak lamb. lamb da la ma ma ak yow ba Ndangaan. bilaay walaay. yow ca Simel. bilaay walaay. ma ak yow ca Diofior. maa yow si Lul Sessène. ma ak yow ca Fimela. Lul Sessène. ñoo jor. ma ak yow ca Lul Sessène. bilaay Kaolack. lamb lamb tax nañu koree àll. ma ma leer. c'est lamb. drapeau chef de lamb ngi noonu. lépp drapeau chef de l'état. ca Saint-Louis ca Mbour ca Kaolack. ca Kolda. ca Tamba cey Mansour oto baa nga noonay dem wallahi Baba Diaw yéeg ca kaw ak Mbagnick Kaïré ndeysaan oto baa ngay dire ku ndànk di dem ña ngay rambal di dem arène nationale la ñu jëm Zarko lan fay fekk wala Zarko fekk leen fa ndeysaan ñoom ñaar ñu jëflante Père Kaïré nga noona ndeysaan saan ho ho ndeysaan jalal ma yaay ja yor na benn layu mama yor na benn layu da koy saraxe wala day upp lan lay def mama yor na benn layu ndeysaan mama ngi noonu ma gàddu benn saak cay lamb ndeysaan saan ho yaram daw na yaram daw na Mansour ay ca ñu dem arène national ànd ak convoi bi fekk Zarko wala Zarko fekk ñu fa. Ndiaye production présente le choc des guerriers. am mbokku amateur lamb yi le 31 lay doon fii ci arène nationale diggante booy Diop mi nga xamante ne bii déggagul muñal ak caatu ngewel mi nga xam ne ku taxaw ci yoonam mu fel la jàll ndaw combat bu rëy le 31 décembre ak Ndiaye production fii ci arène nationale cay Ndiaye production.